dal leen ak jàmm fii ci biir univers info TV s'informer devient une priorité tey nag li gën a fës ci info yi dañ koy doore nga xam ni moo di Kumba bu Ndaw Coumba bu Ndaw nag nekk actrice bu mag a mag a mag ci série bi nga xam ni moo di infidèle récemment nag moom Coumba mi mariage bu rëy a rëy nag coow laa euh, euh, daw jëm ca moom ndax ñu ngi xamal ni que Coumba mi nga xam ni moo nekk ci série infidèle instant bi nag dafa divorcé ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci Actubuzz euh, émission bu ñu amal ki nga xam ni moo di jegeen ñaale woo borom këru Coumba mujj na dugg cëpp appel am waaye da daal di leeral la nga xam ni moo waral rumeur yi nee na ki nga xam ni moo di kumba bu ndaw amul tey divorce tey amu ko suba waaye moom en personne mu ngi toog fi mu toog di woo borom këram di ko laajte li nga xam ni moo di divorce maanaam di ko ñaan baat ba tax na moom kumba depuis trois mois bu ko jëkkëram jooju envoyé ration daf koy rejeté maanaam da ko koy delloowaat te bi ñu xaymawee mariage bi ak léegi ci sept mois dong lay toll ba tax na ki nga xam ni moo di Kumba nag instant bii rumeur yaa ngi jëm ca kaw waaye ñu ngi xamal ni ki ni divorce amul waaye moom Kumba moom mooy def ab appel di woo jëkkëram ngir mu may ko baat wax da tax na lépp luy dund wala lépp lu ñu sekk ñoom ñaar moom Kumba daf ko koy renvoyé waat maanaam ration bi nga xam ne moom la koy jox mu koy dundee Kumba du ci accepté lenn lenn lenn kon nag fii ci biir Univers Info TV dinañ leen ko toppal leeral ba mu sës ba ñu xam réellement est-ce que li nga xam ne moo divorce bi existe ou pas donc d'ici la daw leen ngeen abonné ci sunu page bu ko defee information yi ngeen koy jot à